nag il faut nga sonn alaaji pap quand même mi ngi noonu alquran dal pap ken munu ko jang ta son dafa am yu dara yu daara àndal euh, euh, première question bi ci euh, équipe yi la jógee équipe yu Midi Plus El Hadj Pape Samba Thiam non pas El je n'ai pas encore El le petit pap Samba là le petit réalisateur mom ak ñom tonton mak ñoy laccé ndax massage dagan na genre xam naa massage bo xamé ni euh peut-être sen soxna defalu len ko ndax yenn say nga tawat sax ñu bindal la këyitu ordonnance ne la koy yóbbu ñu maase la pour nga mën a wér. Pape massage dafa xaraam. pour wér laa wér. mais no attends may leeral massage dem ci salon de massage yii ci mbedd yi ak summeeku jigéen tiim la jël ay loxoom di la foroote dafa xaram góor ku ko lewul waru ko tiim ba di ko teg loxo. mais bu fekkee da nekk hôpital nag médecin ci boppam di la faj. loolu da ngay faju ngant la ah. kenn terewu la ko ah, waaye dem ci salon de massage ñu lay maase nga naan sama ndigg li day metek sama tànk yi day metek, te ñi lay maase ñëpp seen loxo yi ya daa nooy ay jigéen lañu daa xaraam même bu dee tànk rek lañ lay maaseel góor warta jox jigéen loxo dafa xaraam ba mu koy maase ni, nuyoo nii daa araam jox loxo nii jigéen xoola nii daa araam hmm. waaye bu ñu araamalee nii sàkkantuma la tàmbalee ca bopp ba wàcc ba ci suuf nan la wëlbatikul dafa haram baaxul du tout. déedéet massage dafa haram jullit du dem ci salon jigéen di ko maase. mais comme par exemple <laughs> kinésie bu jigéen kiné bu jigéen kuy def kinésithérapeute thérapeute yi euh, ou je sais pas trop xaw ma nan lañ koy waxee mais kiné ñi nga xam ni loolu mooy seen liggéey.

on va euh, euh, découvrir d'autres questions <laughs> dañuy dem ci question ak hashtag Bidi, euh, midi plus donc loolu leer na ci massage Nous dem ci question yi une femme répudiée plus de trois fois par son mari est-elle toujours dans un mariage